yéen a ngi déglu Baol Média FM. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen rajo Baol Média ñu fas yéene leen a digtal xibaar yi gën a fës ci bés bi leaderu Pastef nag demoon na tey université Cheikh Anta Diop pour nemmeeku benn étudiant bu amoon ay gaañu gaañu ci manifestation yi ñu daan amal ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille Adji Sarr mi nga xamante ne moo accusé woon moo accusé njiital Pastef Ibrahima coor nag di nijaayam nee na responsabilité wu propriétaire Sweet Beauté di Ndeye Khady Ndiaye affaire bi soxal na ko ak ki nga xamante ne moom lañ accusé di Ousmane Sonko te waru fa woon dem te mu dem bañ tuumaal ko te mu dem fa nag bañ tuumaal ko ñu bàyyi ki nga xamante ne mooy yoon rek mu def liggéeyam Moustapha Niass mu ngi xamal ñi mu bokkal liggéey bi ko lettre bi nga xamante ne maître Malick moo ko bind visé na député bu am tur ak sant muy honorable député Ousmane Sonko Bawar Dieng di liggéeyee fale ci agence bu Sonatel arrêté nañ ko ba placé ko en gardaar bi la ko waral nag mooy dañ kaa soupçonné ne dafa joxe numéro ay autorité assistante bu président Ousmane Sonko nag nekk membre ci organisation panafrique di FRAPP di wuyoo si turu Fatma Mbeng nag arrêté waat nañ ko arrêté waat nañ ko àllarba bi ñu weesu ki ñu ko xamal nag mooy Guy Marius Sagna ci page Facebook am Moustapha Mbacke Lo nag ñu gën kaa xam ci Signor Lo di doom si ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo mu ngi jëlal défense ki nga xamante ne mooy président Sonko nee na nag Sonko du mës a ci combat bi parce que jeunesse su Sénégal yépp ñu ngi si ginnaawam moom sax pare na pour dem prison ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko si benn conférence de presse ba mu doon amal njiital réew mi nag di Macky Sall jot na jot na àllarba bi ñu weesu vaccin yi njëkk ci mbas mi di coronavirus ci teewaayu ki nga xamante ne mooy ci teewaayu ay autorité sanitaire ak ambassadeur bu Siin si ci Sénégal directeur général bu Air Sénégal ak yeneen autorité Serigne mbay Sy Mansour nag àdduna ci li nga xamante ne mooy wax ji mooy wax ji nga xamante ne Moustapha Diakhaté wax na ko jëme ko ci waajuru ki nga xamante ne mooy yonent bi sallallahu wasalam jëmee ko ci waajur ki nga xamante ne mooy Seydina Muhammad nee na nag nit dina liggéeya liggéey ba mu sotti rekk lépp yàqu nee na nag mbokk nañu nañu am yar te respecté ki ñu yàlla boole muy Seydina Muhammad nga xamante ne moo gën ñëpp waajuram bu góor ak bu jigéen ñoo gën suñuy waajur ndax suñuy waajur Moustapha jaxate nag mu ngi baalu jullit yi yëpp di leen xamal ne dafa juum te nangu na ne dafa juumoon mu ngi siy jéggalu bu baax ci wax ju réy jooju mu waxoon jëme ko ci ñi nga xamante sallallahu alayhi ci émission bi mu doon amal ci benn site internet loolu nag moo nekkoon xibaar yi ci bés bi ñu jox leen dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.